julli di sëlmal ci sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moomee nga xam ne yërmaande la woon ci yàlla wàcceel àddina mu nekk yërmaande ju mat yërmaande yàlla subhanahu wa taala yabal ko ci nit ñi ba keroog ci amut lenn luy jariñ xeet wi di leen jegeele yàlla subhanahu wa taala dul dindi na leen ca amul lenn luy lor xeet bi di leen soril seen borom lu dul yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gindee na ca yal na yàlla dëkkee dotti waaneem xéewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam defal tawfiq ak ndëgër lay képp ku jaar fa nga xam ni foofa la saxaaba yooyu jaaroon ak seen ab yonent mbokk yi ci yàlla dañ di continuer ci yi nga ni ay dajale yu ñuy am di fàttalante ci tomb yu aju ci suñu wàllu diine rawatina ci tomb boobu nga xam ne bu nu lu jege at mi ngi ni ñu cay wax muy ad daawatu ila tawxid di woote wala ad ila tawxid al woo nit ñi ci ñu kenn laat yàlla bennal ko wéetal ko jox ko gëdd bi moom muy gëddab yàlla gëdd boo xam ni bokklewu ko kenn nirlewu ko kenn moom suñu borom subhaanahu wa taala yooyu dañu gisane noo ngi dajawaat beneen yoon ci beneen ponk ci ponk yi gën a mag ci ponki pas-pas yi nga xam ni ci ponki pas-pasi kubba la mooy feeñu ab taay-taay bu mag ci mujjug jamono bu ñuy wax masiixu dajjaal nu ànd xam ni ngëm yàlla ci boppam gëm ni bis penc day ñëw gëm ni àllaaxira dina ñëw sunu borom faagaagal àddina bi yépp ñu jóge loolu mbokk yi ci ponk yi gën a mat ci ponk yi wan ni ci gëm na yàlla la bokk bii su manqué sa ngëm yàlla wérut waaye bokk na ci ngëm yàlla lam soxla mooy gëm bis waaye bokk na ci liy firndeel ni gëm nga bis mooy nga gëmaale ya koy jiitu ci ay xew-xew ak ay xabaar yoo xam ne yonent bi xamle woon na ko muy asraatu saa muy mbir yoo xam ne bu feeñee mooy wane ni àddinaa ngi bëgg a jeex bunt bii nag bunt bu am solo la ndax min min min min abwaabil ci bunt yi nga xam day wax ci pas-pas waaye mbirum kumpale lu màgg lu ñëwagul la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat yàlla moo ko yónni te wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa kon dafa jaar képp ku wax ni gëm na yàlla gëm bis penc day jaadu mu gëmaale mboolem mandarga yi nga xam ni yonent bi jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam ni moom mooy jiitu alaxira saa yu mandarga yooyee feeñee ba jeex ñëwug alaxira da ci topp mandarga yooyee nag ci gàttal yu bare bare bare ñëw na ci waaye yoon borom xam-xam dañ koo xaaj ñaari xaaj mandarga bu njëkk bi dañ ko tudd al alaamatu sugra mandargam ñaareel bi tudd al alaamatu kubra mandarga yu ndaw yi ak yu mag xaw tuuti kon rek ma sañ a dogu ci ni mandarga yu ndaw moom daanaka yëpp tey li ci yonent bi joxe yin ci gisagut yu tuutee tuutee tuuti moo ci des foofu nag ba léegi ñu bari danañ jaawale léeg-léeg da ngay am yoo xam yonent bi ca mandarga yu ndaw ya la ko boole ci yu mag ya léeg am yoo xam ca yu mag ya la bokk ñu di ko boole ci yu ndaw yi laal na faram-fàcceeg yooyu dana ñëw ca kanam insha allah kon bokk na ca mandarga yooyee mooy feeñu ab waaye bu saay saay bu bon bu mën a yàq bu ñuy wax masiixu dajjaal xam ngeen ni bii rek mooy mandarga yooyu waaye ñaari mbir tax nañu tànn waxtaanee masiixu dajjal te benn bu ci nekk lu am solo bi ci njëkk ñàkkul ci ñenn ci mbokk yi ay yoon yu bari loo xam ne yàgg na lool nu nuy fàttali ci ñu fàttaliwaat mbokk yi ci waxtaanee masiixu dajjal na nag jamono ji nga xam ni jamono ju ñu fitna la jamono yi fitna la jamono joo xam ne nit ñi ci boppam àddina beeg ni muy doxee ak li xeew ci wàllu technologie internet ak yu demee noonu sabab la ci nit ñi seen xel yi dafa sori lool njàngale yàlla waaye dafa sori lool jubal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jaar na bu lii amee tombeeg yenn ci mandarga yi ñu di ko gis ak sunuy bët jaadu nañu taxawaat fàttali leen tewaat fitna ci tomb bu amee solo nii nga xam ne bu dangereux pour nga mucc ci yàlla rek moo lay dimbali kon ñu gis ni loolee kat wax dëgg yàlla lu am solo la ñu dimbali ko yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy nga xam li faatu mu dimbali ñu ca loola ñaareel bi mooy ab xadis a ngi nii boo xam ne xadis la bu ratlu boo xam ne sabab la woon ci tax ñu gaare woon lii waxtaanee ci matnixi dajjal bu yàgg abdullah ibni ahmad di doomu imam ci ndollent yi nga xam ne indi na ko ci musnad te wér na imam tabarani génn ko ci musnadu shaamiyin imam ju mag al imam al haytami ci téere bu di al majmaa mu ni toxal nañ xadis bi jëlee ko ci baqiya mu jëlee ko ci safwan ibn amr te ibni mayin nee na riwaaya bu wér la moo tax cheikh nasrul albani ci téereem boobu nga xam ne moom it jazahu llahu kulla xayr mi ngi ko jagleel masih dajjal boo nee ma ngi cee indi wax jii may wax xadis bi assaab ibni jusaama moo ko solo mu ne yonent bi day nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yaxruju dajjal xatta yazhala annaasu an dikri wa xatta tatruka al a'immatu dikrahu ala al manabir allahu akbar yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam masiixu dajjal du génn mukk lu dul dayoo dem ba nit ñi dañ koo fàtte waxtaanee suñ ko ñu dem ba imaam yi jàkka yi sax dootuñ ko waxati ci kaw min bari allahu akbar mbokk yi lii laa yor ayu alaamatin ban mandarga mooy mandarga boo xam ni xam ngeen ko mu gën a rëy ci mandarga yi wane feeñu masiixu dajjal kabii ñaata yoon ngeen dégg ñuy waxtaane masiixu dajjal lu néew a néew la ba dañoo dem ba ay may ñuy wax ci jàkka yi ñuy xutbaa ñi nga xam ni xutbay jumaa ci boppam moo nekkoon ab dajewukaayu jullit ñi yii xew yi yëpp ay ay ay doom la rek waaye la ne woon ndey la maam ji cëslaay ja mooy xutbay jumaa ñu fàttali nit ñi ci yàlla lu leen yóbbu ba àjjuma ci dellusiwaat waaye mbokk yi yéen yàlla bi nee na masiixu dajjaal du génn lu dul nit ñi dañ koy foye sàgganee ko dootuñ ko waxtaanee ñu dem ba imaam yi jàkka yi sax dootuñ ko waxati ci kaw min bari mbokk yi ma wax ni soo seetloo tey li ëpp ci ay ma jàkka yi ña ngay wax te yeneen dëgg la yi ñëw am na solo waaye dañoo fàtte masiixu dajjaal waaw ayima yi nga xam ne ñoom ñooy war a gindi nit ñi ñoom ñoo fàtte masiixu dajjal ñu baax ñi ñu ragal yàlla ñi ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam ñoo war di gindewaate di waxal nit ñi lu ñu xamul su dee ñoom ñoo fàtte masiixu dajjal suma baraka bi awaami naas kon nit ñi nga xam ne ñoom nañ ko war a fàttali ñoom nu ñuy mel lii de dañuy ñaan yàlla sa wa taala mu jàmmal nu jéggal nu yërëm nu ndax moom mooy ki nga xamante ni mooy ki yërëmaate ànd ak lii lépp téyewul at yële weesu ñoo ngi fàttaliku defoon nañ al fàttali bu yaatu ci masiixu dajjal ak ci faram-fàcc waaye ba léegi jàpp nañ ñu doyut ndax lii ak fàttali la wa inna zikra tanfaul muminin fàttali moom toujours day jëriñ ci gëm yàlla comme ni ko suñu borom waxee kon nag li ma nitoo yàlla soo talaa moo kawe di wax masiixu dajjal moom mooy kan lu tax ñu tuddee ko masiixu dajjal ndax jinne la ndax nit la am seytaane la est ci doomi aadama yi la bokk wala déet ñaata diir lay am ci kaw suuf lum fiy def ay fitnaam lan la fan ak fan lay dugg yooyu yëpp ci kàttanu sunu borom subhanahu wa taala def na ko faram-fàcce insha allah waaye ànd ak loolu lépp balaa ñuy xuus ci tomb yooyu ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dafa ñëw ci jàkka ji fekk saxaaba yi def li mu tuddee mudaakara mudaakara mooy fàttalente ci seen tombi diini xadis bi xudayfa ibni usayd alxifaar yi moo ko solo mu ne yonente bi daa dugg ci jàkka ji fekk ñu def mbooloo toog di fàttalante yonente bi ne waaw lu ngeen di def nii ñu ne ñun de dañuy fàttalante suñu mbirum diine rek ci lan ngeen di wax mu ne ñu ngi wax ci ñëw àllaaxira tukki teg àddina xam nga ñooñu xamoon nañ ni kon àllaaxira dana am yonente bi ne na ngeen xam ni àllaaxira day du am mukk du ñëw lu dul di ngeen gis fukki kéemaani yàlla benn bu ci nekk dana ñëw ba jàll yàlla doog a tukkal addinaam bi innaha la taqum xa tarawna qablaha ashra ayat fukki kawteefi yàllaa ngi yoo xam ne di ngeen ko gis addina doog a tukki fa dakara duxaan mu tudd li nga xam ni mooy ab sëgër la sa xaar su bokkut ak si nga xam te alquran di ko juñ joo xam ne dañuy jekki-jekki rek seen ko mu fees dell ci jaww ji fartaqib yawma tati samaau bi duxaanin mubin nga xam ne suñu borom sax tudd na ko saar ci alquran benn waa dakara dajjal mu tudd masiixu ni faaw mu fee àddina doog a tukki mu tudd ab daaba daañ dem ba mu yàgg ab daaba génn ci nit ñi moo xam fas lay doon moo xam géléem lay doon moo xam nag lay doon yàlla moom mooy ka xam fan lay feeñee yàlla mooy ki xam waaye daaba jooju daal saa bu génnee aw rab lay doon waaye day wax ak nit ñi ci làmmeñ wi nit ñi dégg di leen fàttali di leen waar di leen delloo ci yàlla yéen mu ni wa tuluu ash-shamsi min maghribiha dinañ gis jant bi fi mu daan fenkee du ko fenkee jant bi fii lay fenkee te fenkukaay ba waaye dañuy gis jant bi day xëy rek fenkee fa mu daan soowee yent yàlla bi mu daal di tudd wa nuzula isa yent yàlla isa nga xam ni ay kuréel ci ñuy askanee diine ñi ngi jàppee dañ koo rey dañ koo pànd te foofu damay profité wax ni yar ak ñàkk teggin ak ñàkk xam looy wax ak nooy def mooy loolu ku toll ni ab yonent nga di ko deseen ko mu sol yaramu neen ngeen ko kese ñi di ko pendre nga di ko xool nga ni kii la wallahi bu ñuy wër ku ñàkk ya yow yaa ñàkk yar ndax damaa jàpp nit ku simple koo ni dañ koy xoolee mbaax ak ragal yàlla sax waruñu koo def noonu waxuma laak ab yonent wa man asdaqu min allahi qiila sunu borom mu ni wa ma qataluuhu wa ma talabuuhu walakin subbiha lahu rayuñ ko pandruñ ko yàlla wut keneen ku ñu roog Isa ka doon boole Isa moo ñu roog Isa ñu ko yàlla bal rafaahu llahu ilayhi yàlla da ko yëkkati waxul daa dee nag nañ bàyyi xel foofu waxul dafa dee rafaahu llahu ilayhi yaa isa inni mutawaffik ñu ba dañuy jàpp ni mooy dee déedéet inni mutawaffik tekkiwut dee ndax wafaat dina dikk ci alquran tekkiwut dee huwa alladi yatawaffakum bi layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ak yeneen ak yeneen kon yàlla wax mooy moo ko yëkkati fa mu nekk ca la nekk yàlla moo ko xam dana dellu si waat nag waxul dekkiwaat de waxul dekkiwaat waxul ci tuwaat dellu siwaat lay wax Isa bu dellu siwaatee loola mandarga lay doon ci mandarga yi àddinaa gi jeex feeñu Yajuuj ak Majuuj ñaari xeet lañ wala aw xeet lañ woo xam ni buñ la waxee ci Masiixu Dajjaal ba nga amul tiitaange buñ la waxalee ci Yajuuj ak Majuuj tiitaange joo amoon ne di nga am lu ko fële ndax aw xeet lañ woo xam ni fii gaayatil xubsi wal xubs yent yàlla muy ak ñetti mëdd ak suuf suuf su mët benn baa ngay amee benn baa ngay amee ca fa nga xamante ni moom mooy ca côté mashriq fa fenkukaay jant bi waaye benn bi ma ngay amee ca fa nga xamante ni moom mooy euh, ca sowukaay jant bi muy la cay mujj nag naarun taxruju min al yaman dañuy jékki-jékki rek ci côté yaman la ñuy seen call meer yi tàkk-tàkk sawar a génn rek di call meer di bërëgu ci jaww ji tàkk-tàkk joo xam ne doomu aadama mosuñoo gis tàkk-tàkk ju mel noonu tàkk-tàkk jooju mooy bërëmu rek di jiital nit ñi di bërëmu rek di jiital nit ñi moo leen di dàq ba ba ñu yegg fa yàllay àtte ñëw na ci riwaaya muslim sax ab riwaaya boo xam bu dugg bii bu ndollente la waaye riwaaya boobu wér na muslim mu ni tàkk-tàkk ba bu leen dàqee fu ñu yend mu yend ba fu ñu fanaan mu fanaan ba na leen jiital ba ñu yegg ci yàlla subhanahu wa taala te xadis mandarga yii ma lim fukk yii ma lim ñu bari dañuy jàpp ne maanaam nii lay toppalantee duxaan day ñëw dajjaal ñëw daa ba ñëw yi topp topp ci déedéet bi ni mu tëddee tekkiwul ni noonu lay toppalantee comme ni ko ñenn ñi foogee déedéet ban tegtal lañ am ci wax loolu mooy ñëw na ci yeneen riwaayaat yu wér yoo xam ne yonent bi lam wax toppalantewul nii kon lim lay wan mooy mbir yi daal dana am waaye alxaafid ibnu xajar mu ni su ndee boole riwaayaat yooyu ni ñu koy boolee li lim xam ci gàttal daal mooy masiixu dajjaal moom mandarga yu mat yi tukki wane tukki teg àddina ba cay njëkk a feeñ mooy masiixu dajjaal loolu moom wér na mu ne ba cay mucc mooy feeñu ka Isa wàcc gi muy wàcc nga xamante ni bu wàccee ci kaw suuf nag am na lu mu fiy wut si bu ko defee loolu tamit def na ko leeral insha allah te lii na tax lii tax moo tax ñu tàmbali ci xadis bi di leeral ni maanaam ñu xam ni kéemaan yii nga xam ni mooy gën a masih dajjal cay jiitu waaye benn buñ ca gis rek xamal ne ya ca topp day commencé di rot allahu akbar ab xadis a ngi nii boo xam ne imam ahmad mi ngi ko soloo nettali ko ci musnad alxaakim nettali ko ci mustadrak te xadis la bu wér yent yàlla bi nee na ci xadis boo xam ne abdullah ibn amr moo ko solo mu ni al ayatu xarazatun mandumatun fi silkin fa in yuqta silku yatbau baaduha baadan yent yàlla bi ne kéemaan yi lay wan ni àddinaa ngi tukki mu ngi mel ni rek ay per yu ñu nos ci ab caq caq per yan ca nos bis boo sàgganee ba tekki takkukaay ba fasuñ cat la bu per waddee na ca per yee toppee yonent yàlla mel ne kéemaan bu njëkk ñëw rek yi cat noonu la koy toppee mu ni kéemaan yàlla yi xarajaatun ay per la manzumaatun yu ñu tënk fii silkin ci buum fa in yuxtaa silk bu ceeb dagg rek yëpp baaw baaw waa baadan bu ni putt beneen ni putt kon bu ñu gisee masiix dajjaal rek xam leen ni kéemaay noonu lay toppalantee ba keroog yàlla tukkal àddina bi kon mbokk yi xutba yi tey ji mi ngi tënku ci almasiixu dajjaal kama wasarahu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam masiixu dajjaal ko mel ni yaa ngi jàkkaarloo moom di ko gis ñu wax la ca wax ju jëm la ca yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ba saa bu yegsee nga xam yow nooy def masiixu dajjal wa ma adraaku ma dajjal kan ana kan ak ndax xam nañ dëgg-dëgg kuy masiixu dajjal man baawul kufri wa dalal kéefar caay-caay bon yàqute buñ koy wax dañ ni masiixu dajjal mooy ballukaay ba waaye yanbuuxul fitani wal awjaa rëbi na buy xeel fitna ñu ne mooy masiixu dajjal ndax jinne la ndax nit la nag ci doomi aadama yi la bokkoon oxon kay ci njabootu maam aadama la bokkoon te loolu sax balaa ñuy xuus benn baat nga xam ni masiixu dajjal fii may wax ak yow mi ngi dund masiixu dajjal fii nu toog di waxtaan ak yow mi ngi dund fa mu nekk dañ ko faa yeew ba mu ni ngoot tànk yi li ko tàmbalee ci óom yi ba ca suuf comme wey am na saxaaba bu ñuy wax tamimu daari bu ko gis ak bëtam ba mu ni ci li ko yenn saa ko yenn bi dafa yéemu ci yàlla te saasa bu bàyyi lim doon def ñëw ci jàkka ji woote ne saxaaba yi daw si leen kaay leen bi ñu yegsee mu ni tamimu daar yi nettali gaa yi dégg tamimu daar yi nettali histoire ba te loolu dinaa ko nettali incha allah waaye ba mu ko nettalee ba yeggal yéen ci yàlla bi ni est ce que du lii laa leen doon wax ci Masiix Dajjal saxaaba yëpp ni ko oxam kay kon mi ngi dund lii dañ koo yeew dees na ko tekki saa buñ ko tekkee ci lay doog a jëf yii ma lay wax te dana ñëw laa ma xalata fi daalik Masiixu Dajjal ci doomi aadama yi la bokk lakinnahu shaytaanun kaaminu shaytaan shaytaane du mat shaytaane tigi mooy masiixu dajjaal ba pare bokk ci nit ñi amul fitna wala musiba ju yàlla mën a wàcce ci kaw suuf ak li addina bi yàgg yàgg yàgg ba fii ma taxaw di wax li addina bi nar a des ba keroog muy tukki amul fitna ju fi mas a jaar ju gën a rëy masiixu dajjaal mbokk yi ndax wax jooju xool nañ tolluwaay loo xalaat loo mës a dégg loo yaakaar ci ay fitna loo mës a dégg ak loo nar a dégg soo leen boolee masih mooy fitna ji naa gën a rëy di mas ci kaw lan mooy tegtal ba xadis boo xam mi ngi saxihu muslim yonent yàlla mee ne maa bayna xalqi aadam ila qiyaami saa amrun akbaru min addajjal bi yàlla bindee aadama te loxoom lu tedd la ba keroog àddinay tukki lu gën a rëy masih dajjal wàccegul ci kaw suuf ibni maaja solo na ci sunan wa kadalika xaakim ci mustadrak imaamu tabarani ci mojamul kabir cheikh nasrul albani mu ne xadis la bu wér ñu jëlee ko ci umamat albahili yonent yàlla bi ne ne innahu lam takun fitnatun fi l ardi mundu dara allahu durriyata aadam aadam min fitnati dajjal ba yàlla bindee njabootu aadama ba tey amul fitna ju mas a wàcc ci kaw suuf ju gën a rëy fitna yi masiixu dajjal mu ni wa inna allaha lam yab'ath nabiyan illa xaddara ummatahu dajjal amul yonent bu mos a wàcc ci kaw suuf nuux Huud Saalex Yaaqub Yoosuf Ibrahim limal ñoom ñëpp yonent yëpp amul yonent bu mos a ñëw ba dem lu dul dox na waar aw xeetam di leen bàyyiloo xel masiixu dajjal ndax garaaw gi mu garaaw yonent yàlla bi mu ne wa ana axirul anbiyaai wa antum axirul umam umam man maay yonent bi mujj ci yonent yi yonent dootul ñëwat sama gannaaw ku ko wootee wax nga lu amut waaye yéen ay xeet yu mujj yi xeet dootul ñëwat seen gannaaw mu ne wax wa xaarijum fiikum la maxaala masih dajjal ci yéen ñii may waxal lay génn sikk sàkk amut ci loolu mu ne wa in yaxruj wa ana fiikum wa ana bayna dahranaykum fa ana xajijun li kulli muslim masih dajjal moom bu génnee fekk ma man yonent bi suba moom lañ doon tiit dootul amati ndax dinaa ko fegal ci kàttanu yàlla bépp jullit waaye wa wa in yaxruj wa min baadi su génnee fekk faatu naa man yonent fa kullu mriin xadidu nafsi kenn ku ci nekk nag ku yaba nga teel a xam kuy masiixu dajjaal jël say matukaay xam foo jaar bu yegteeg nooy def ak kooku mooy ndax ku nekk yaay fegal sa bopp wallahu xalifati ala kulli muslim yàlla nag moo may wuutu ci bépp jullit masiixu dajjaal ban sifa la am laqad wasafahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam wasfan daqiqan li anna masiha dajjal fitnatun fi gaayati alxutura yonent bi da koo melal ba melal la nu fu muy génn ñi koy topp nuñ léppam yonent bi melal na ko sallallahu alayhi wa sallam ngir wallahi saa bu nuy wax ci masiha dajjal li may gën a tiit mooy bu yegg see ci réew mu mel ni ñun ñun nga xam ne ay xuraafaat ak xar baax daf noo neex ah da nga gis nit koo xam ne moom ay xuraafaat ak xar baax ma ngay naaw te jaww jaag ma ngay def yëf yëf yooyu yooyu rek ko neex bal yooyu sax moo ko gën a convaincre boo ko doon waaree alquran du waar waaye boo ko waaree yooyu mu waaru te mbokk yi masiha dajjal lii rek la fees dell na ay xuraafaat newoon naa la man baaxul kufri wa balaa rébi na lii xeer li kéefa rek caay caay ak bon mooy masiha dajjal loo xalaat ci xeeti kéemaan rek yàlla da koo dégg mu nekk fitna ji yàlla yi indi ci kaw suuf moom lay junj yawma yati baadu ayaati rabbik laa yanfau nafsun imaanuha lam takun amanat min qabl yéen ñu melal ko melakaan woo xam ni buñ ci jugee wallahi bu la yàlla dana defal tawfiq da ngay mel ni waa ji mën a la defee ci xutba yii di ñëw nga xam ni moom matière daga da koo xar ci digg bi sànni fee sànni fële jaar ci diggante bi te nal xool leen sama jaam bi ni ma ko xaree xanaa su ma ko dekkale dina ma gëm daal di koy dekkalaat waa ji bi wallahi ma zadtu fiika illa basira anta almasihu alkazab tey laa gën a gëm ni yow mii kat kat ci kat nga ndax lii ngay def loolu la ñu yonent bi waxoon lu tax ma ñu tili loolu mooy ngir nga xam ni comme kii déggoon na njàngale yan sasalam xamoon na ko man ko doon jëfee masiixu dajjaal du ko mën a xëpp si ay subuhaatam ku bari ay lëtt la masiixu dajjaal shaab jeune la am na riwaay ñoo di wax cheikh waaye bi moo gën a dëgër jeune la jeune la boo xam ne ahmar ñuulut dafa xonq boo ko gisee teen bi ko yàlla jox bu ñëwee fee tee bi ko yàlla jox dafa xonq ab xaj dafa rinc ndaamalu gàtt la qasirul ab xaj dafa gàtt dafa xonq ndaama la tànk yi dafa rinki yonente mu ni sallallahu alayhi wa sallam ah jaadu rek kawari bopp bi dafa tuqaaral ko xoolee xeetu baramu gi xaw a kawari baramu bokkut ak yi nga xamoon jëbi dafa taj dafa tàpp moom masiixu dajjaal waaye bët yi bët bi bu ndeyjoor bi bët la boo xam ni dafa pat parce que nag nooxut ba ca biir a biir waaye génnul ba ca bitee biti dafa tàppandaar maateeg faxum bët mi ba boo ko xoolee boo daggoon doom rek tëmbal ko ci géej cim ndox na doom bay tëmbee ca kaw ndox ma noonu la bët bi mel ci kaw sallallahu alayka ya rasulullah xol melokaan yi bët di mel sax dala koy mesal te li gën a kéemaane mooy yonente bi toujours day insister ci dafa pat dafa pat dafa pat lu tax ndax Masiihu Dajjaal bokk na ci ay fitnaam day woote ni moom mooy yàlla mu ni wa inna rabbakum laysa bi aawar nee moom mooy yàlla yaay allahu akbar man li ma gën a kéem fii bokk na ci mooy yàlla def na mu rinki def na mu nangam def na mu nangam loxo bi mënoon naa damm waaye xoolal bët koo jàkkaarloo la ngay njëkk a gis ci moom mooy bët yàlla defal ko mandargam pat di wan ne lii ab manqué manqué la te yàlla amul benn sikk amul benn manqué kon bu nee maa yàlla moom balaa muy jàll benn baat da nga naan ko defaral sa bët bi ba pare bu defaree bët ba noppi nga doo koy jaamu nga xam ne kon moom mooy yàlla yemu ci loola waaye benn bët bi tamit dafa yàqu beneen bët bi moo mën a boo ko fat du gis beneen bi ci def dafa yàqu doon bi ca lay gisee waaye dafa mel ni moom moo tax ci taxu ci kaw bët bi dafa am xeeti feebar yoo xam ni dafa am benn morso ndawal bu ndaw buy tege ci kaw bët bi mooy baare weex weex bi ñuul ñuul bi nga xamante ni moom la ñuy gis nee na beneen bët la kon ñaari bët yépp ay benn bi daa fas benn bi am na sikk yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maktubun bayna aynayhi soo dikkee fii ñaari bët yi wala ci jëbi dañ cee bind xarafu kaaf ak xarafu faa ak xarafu raa kaaf faa raa loolu li muy tekk mooy kaafir am na riwaaya dañ dañ koy bind par arab benn par arab benn arab am na riwaaya bu ñëw mu ni kaafir lañ ciy bind mooy kii yéefar bi allahu akbar xoolal dañuy bind ci jëbi kaafir jeune la dafa gàtt dafa xonq dafa rinc jëbi dafa tàppandaar bii daa pat bii dafa yàq dañoo bind ci jëbi kaafir mooy ab yéefar subhanallah mbokk yi lii moo tax jàng baax gis nga jamono yi paase maa ngi déglu ben benn information benn waay bu ñuy wax ne moom mooy mooy bu xaaba xaw xam naa du ñàkk yéen di ngeen ko déglu waaye xam ngeen ñu tudd kaafir diin mooy ku weddi diine xoolal loolu yow ki nga ne man li ma tudd mooy bu weddi diine kooku war na laa wax day jël bu xaaba bu ñu wax ñuy jël moom àll ngeen waaye bu xaaba yëpp dajee woon da ku dul kaafir diin di diine xoolal dafa mel ni nit ñi daal dañoo topp ci ginnaaw machine yi mel ni sareet bu topp fas wi daw xoolal dañu bind ci bi kaaf ak faa ak raa bu lay wan ni kii ab yéefar la yonent yàlla bi nee na bokk na ci ay mandargaam mooy yàlla day def kéemaan képp ku na a texe nar a baax rek même boo xàmmeewut liif ak laam di nga ko mën a liir allahu akbar boo musu dugg école xàmmeewul liif ak laam alif gu juutug alif gu taxaw boo ko xàmmeewut waaye yàlla def na ci yow bu baax soo xoolee masiix dajjal da ngay xam ne lii mooy kaafara mooy yéefar na bokk na ci mandarga masiix dajjal a ñëw du feeñ lu dul imaam yi dañ koo bàyyi xutba ci kaw jàkka yi defe naa loolu moom gis nañ ko bokk na ci ay fitnaam ay mandargaam comme ni ma la ko waxee bët bi ci boppam dafa mat bokk na ci ay mandargaam dafa nuru benn waay bi ñuy wax Abdul Uzza ibn Qatin am na benn waay boo xam ne ca saxaaba ya la doon tudd du woon jullit nag avant l'islam di ñëw la benn waaye bu ñuy wax Abdul Uzza ibni Qatin melokaan woo ko yàlla bindee woon yonent bi ne saxaaba yi mës ngeen a gis Abdul Uzza ibni Qatin am ci mbooloo ñu ne ñun kay mës nañ koo gis bi ne moom Masiixu Dajjal kiis kiis na am na riwaaya sax yuy wax ni moom la doon wax naan yonent bi moom mbaa nuru gi ma nuroog moom du wàññi dara yonent bi naa ko moom julli yow yow julli nga moom yéefar waaye riwaaya boobu wéru li wér daal mooy ñoom ñaar ñoo nuru Masiixu Dajjal day dox ci kaw suuf si àddina bi yëpp lu dul ñeenti barab waxuma la Afrique waxuma la Europe waxuma la foo xalaat dama ni àdduna bi fu suuf nekk ay nit nekk fa Masih Dajjal dana fa teg tànkam yàqal ña nekk ba mu des ñeenti barab Masih Dajjal dina am ñeent fukki fan ci kaw suuf am na bisam yoo xam ni comme weer lay doon benn journée benn jour ab di boo xam ne day gudd comme weer lundi boo xam day gudd comme at lundi boo xam ne yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam day mel ni comme ferñeent sawara taf taf jooju muy def keroog la ko saxaaba ne waa bis boobu bu ñëwee nag léegi nañuy def ci julli bi tisbaar ak takkusaan ak timis noonu koy julli bokk na ci mandarga masiixu dajjaal mooy gaawaayam ci kaw suuf ni ko yonent bi melaalee mi ngi mel ni taw bu ànd ak ngelaw ngelaw luy daal taw bi ni muy gaawee yonent yàlla muy noonu la gaawee am na benn mbaam bu muy war bu ñëwee masiixu dajjaal mbaam la boo xam ni moom it bi gaayatil xub si kasa kasaaxibi mbaam la moo xam ne ni mu tiboo ni mu bonee comme boroomam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mbaam la moo xam ne ardu ma bayna usnayhi arbauna siraa gis nga li ko tàmbalee fii ba fii nga di ko natt ba muy ñeen fukki yoon yonent yàlla bi nee na mooy toll diggante nopp ndeyjooru mbaam bi ak nopp càmmoñ bi moom la masiix dajjaal di wax yonent yàlla bu ne kasiiru subuhaat ku bëri am lënt la yubriwul akmaha wala abras ku mën a fekk ku dee mu rey ko ci li nit ñi dekkal ko te lépp ay ay xuraabaat ak xusaabalaat kese la ko xam nga ni kon raay ku ngaana wala mu feebar mu wér loola kon du ko jaaxal waaye bokk na ci li ëpp ci li koy topp ay yahud ay kaw-kaw ay jigéen yonent yàlla bi ñu ëpp lu koy topp balaa muy fee ñetti ati record dana am at mu njëkk mi yàlla dana asamaan li nga doon taw xaaj ko ñetti xaaj wàcceel ñaari téye benn suuf li nga doon génne ci gàncax xaaj ko ñetti xaaj génneel ñaari téye benn atum ñaaral bi mu ni sunu borom ni asamaan xaaj ko ñetti xaaj ah? téye ñaar ya téye téye téye benn bi téye benn bi joxe ñaar yi mooy ci at mu njëkk atum ñaaral mu ni téye ñaar yi joxe benn te ñetteelu at ma nag sunu borom mu ni asamaan téyel li nga yore suuf téyel li nga yore at mooma gàncax du sax ci kaw suuf am ndee dina am ci kaw suuf dee xam ni da ngay foog ni ay teg ci suuf la nit ñi mel ci kaw suuf bokk na ci ay mandargaam ginnaaw bu jullit ñi ubbee fi ñuy tuddee Constantine nga xam ne tey jii nekk ci réewi tubaab moo tax fi ñu fi ñuy tuddee Istanbul ci àddina na yéen ci yàlla bi ne saxaaba yi ndax mos ngeen a dégg foo xam genn wàll gaa nga tiim géej gi genn wàll gaa nga tiim jéeri ji saxaaba yi ni ko waaw waaw yéen yàlla mu ni balaa Masiixu Dajjaal a feeñ jullit ñi danañ ubbi réew moom gis nga buñ koy ubbi du cawante jaag dara jullit ñi dañ ñëw ba taxaw ci nekk jullit yu dëgër yu gëm yu wuute ak ñun dañuy wax bismillah wallahu akbar wa la ilaha illa allah yent yàlla mu ne wàll gi féete géej gi maa ko daan fañ taxaw fa la ñuy taxaw daa def bismillah wallahu akbar wa la ilaha illa allah beneen wàll gi màpp yent yàlla mu ne mu seen ko loolu ñu dugg jël la ñuy jël dem seen yoon fan toog ci séddoo bagage nag fa la ñuy dégg ab yuuxu bu leen di wax ni masiixu dajjal feeñ na ñuy bàyyi yëpp daal di génn kon mbokk yi masiixu dajjal mi ngi noonu amul fenn fu ci kaw suuf lu dul ñeenti barab yi ma nar a lim insha allah lu dul masiixu dajjal dina fa teg tànkam masiixu dajjal borom xam-xam yi dëppoo nañ ci nit la ci doomi aadama yi la bokk maa ngi fàttaliwaat jeune la dafa xonq dafa gàtt dafa ring jëbi dafa tar karaw gi dafa cuqaaral bët bi dafa bat bii dafa am lu tege fii dañ koy bind kaaf ak faa ak raa am na mbaam mu muy war fu ne lay ci kaw suuf ba mu des ñeenti barab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yii ci ay njàngareem la bokk benn bu ci nekk xadis rot na ci insha allah waaye li tax tuddee ko a dajjal borom xam-xam yi ñu li annahu yugatti alxaq bilbatil day fekk dëgg mu neenam nga masaxa mooy raay na nga raay muur la nga raay moo tax ñaari masiix ñu am masiixu lxaqi wa masiixu dalal masiixu xaqi mooy isa moo lu ñuy wax almasiixu isa bni mariam amma masiixu dalaal mooy masiixu dajjaal mooy kii nga xam nahnu ala sanadi ñu ngi ci di waxtaani ay mbiram kon am na ñu ne déedéet yugatti ala nnaasi kufrahu bi kadibi ab yéefar la waaye pour mu xam ne du yéefar fen yi muy fen mooy muur nekk gi mu nekk bu yéefar am na ñu ne déedéet yugatihi aydan bi kasrati jumuwaay mbooloo mi koy topp dafay bare bare bare bari ba pour nga mën a gëm ni kii ci ay caaxaan lay nekk déedéet da gis ndeysaan ñun dañu jàpp ni bariwaay muy indi mbooloo fard maanaam mbooloo bariwaay baay tax mu baax xanaa dañoo fàtte ne aktar yi ci alquran yàlla da koy xaj da koy sax xas walakin aktar annas la yafqahun aktar annas la yaalamun la yaaqilun la ma aktar annas walaw xarat aktar yi fu ko yàlla tuddee rek xamal lam cay teg baaxul mi du mbirum bariwaay waaye xam nga mbirum lan la mbirum ay góor yu dëgër yoo xam ne buñ matoon ñeent mën a liggéey lu mel na saxaaba doon liggéey ay góor yoo xam ni ay jàmbaar lañ yoo xam ne ku ci taxaw mën a remplacer junni nit la Omar ibn al-Khattab doon wax bañ ne ko yónnee ñu junni nit mu ne Miqdad ibn al demal ñu ne ko ñu ne junni ngay yónnee benn nit mu ne góor a ngi goo xam ni fu mu taxaw def fa lu junni mën a def kon góor yu mel noonu moo tax ñuy wax waaye waxuñ ab bari waay kon masiixu dajjaal lii moo tax ñu tuddee ko masiixu dajjaal amaa nag léeg-léeg di ngeen dox moom yaa di dégg ñenn ci moo xam ay intellectuel lañ leen di wooyee moo ay islamologue lañ leen di wooyee xaw ma seen tur yooyu nga xam barki démb la commencé am ak nuñ ko mën tuddee dañuy wax ni ma Dajjaal du xaqiqa du réalité maanaam benn symbole la buy wane ni daal mbon day tasaaru ci kaw suuf damay wax ni ibtaalu hada laa yaxtaaju ila tadiyaay waqtina pour neenal loolu delluñu ñu ci yàq waxtu bu bari ndax damaa jàpp ni képp ku yorum xel di déglu li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ba mu di nga xam ndax la ñooña wax moo wér wala li ñuy wax mooy wér kon dama jàpp ni kii déglu rek mën naa tontu wax jooju dama jàpp loolu jaxlu na arib jaxlu na arib réer la goo xamante ne réer gu ron réer goo xam ne réer gu tànkute la ndax ku xam yari safaan li muy waxe ak valeur li muy joxe di tajsim asiya yi nii la mel nee la mel nee la mel loolu kuy wax benn symbole la buy wane ak yàq dañuy wax ne yow xamoo dara da war a jàngiwaat kon masiixu dajjaal lu am la amma boo demee ci téere sunan yi ak ci xaax yi masaani di sahih muslim buxaari Abu Dawud Tirmidhi Nasaayi Ibn Maaja Musnadu Ahmad nga dem ci téere yi sunna sunan yi ba nga dellu ci maajim yi comme moo jëm imam Tabarani ci ba tudd sànq da ngay fekk ci kàddu yi sunna yi fees dell njàngale Masiixu Dajjaal yonent bi di ko melal ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo moom ci ko gis kon mbokk yi ab muqaddima la ab tàmbali la ci ñu junj ngir nga xam ni nuy waxtaanee kat fi gaayatil xutuura mbir mu danger la pour nga mucc lu jafe la la muy indi ci ay fitna lu rëy la kon lii ab tàmbali la ala wajhi talxiis tënk rek la waaye amma ala wajhi tafsil ci faram ak lenn lu ci nekk ñu leeral na muy demee ak kañ lay doon loola mi ngi am ci xutba yii lay jëm insha nu ngi ñaan suñu borom bu baale ñu jàmmal tey di fàttaliwaat a inna dikra tanfaul muminin yéen yàlla pour war na ko bàyyi woon kalimat dajjal amul julli gooy julli bu dee xam nga lislaam lu dul balaa nga da nga ñaan allahuma inni a'udhu bika min adhabi alqabr wa min fitnati almahya wal mamat wa min fitnati almasih ad-dajjal xoolal bal borom ku ko ñaanul da ngay baamu sa julli allahu akbar kenn ngi nii ci borom xam-xam yi doomam ju góor dafa julli mu paree mu ne ko est ce ko demal julli waat lu tax ngir wane ni mbir mi lu doy waar loo xam ne yonent bi julli ku mu julli musul ci yàlla laa sakk ne loolu rëy la ñi ngay musloo ci seytaane noonu nga war a musloo ci ñoom ci moom ñu ngi ñaan suñu borom boole ñu jàmmal rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma inna naudu bika min adabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasih addajjal wa min adabi annar naudu bika ya rabbana min shururi anfusina wa sayyiati amalina nasaluka alhuda waltuqa walaafafa walghina wa salli allahuma wa sallim wa barik ala rasulika wa abdika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain